ndaje mi mu gën a kawe ndaje mi wala mu ni gën a euh, euh, réussir mënuñu ko am ndaje moo xam ne bi nga koy démarrer xalif général des mourides moo yebal ku bokk ci moom mu ñëw ñaanal ñu ñu démarrer mu yëkkati seen kàddu yu rafet ñuy jeexal ndaje mi xalif général des mourides ñu tàllal suñu loxo mu ñaanal ñu ndaje mu mel noonu mënuñu ko am mënuñu am lu ko ëpp lée am na ci nag lu ciy ñuul li ciy ñuul mooy loo xam ne ñun dañuy ay citoyen bokk ci dëkk bi di ay journaliste ne ci ay gox-goxaat boole suñuy fukk ak suñuy juróom xalaat xalaat bu rafet ne war nañoo waruñoo faste suñu loxo ci élection yi ñu jëm dañ ko war a Nous sommes formateurs nous war formateurs, former ñu bind ñi nga nous le président de la république le premier ministre le ministre de l'Intérieur, le ministre de la communication personnellement particulièrement le ministre de l'Intérieur, nous sommes Ndiaye ñu sommes mu de présider nous bu obligation la mu Nous sommes na sous gouverneur moi ñuko wër le ministre de l'intérieur muy son docteur de cabinet muy son chargé de communication ñom ñep woo nañ jot lañ personnellement yeneen courrier mi nga ñu ak les décharges ken fi ñu ñuko fi ci dëkk bi muy les commissaires ñom ñep jox nañ lettre d'invitation pour ñu ñëw ken teewu fi pour ñu waxtaan ci li nga xamné lu am solo ci dundu euh, askan wi ñuy ay citoyen de ko doon loolu metti nañu trop te ñaaw na ci ndaje bi mais mënu ko xajamal nak ndax li ñu am mënu ñu ko wax serigne Muntaxa ci mom lañ commencé ci mom la terminé wayé nak wax dëgg yalla ay nit lañ bokku ci dëkk bi don ci don ci don don bàyyi suñu waar ci li nga xamné ne suñu wàll ci waar yi nga xamné mom moom lañ jëm le 24 février Ali Nguy Ndiaye di ministre de l'intérieur organisateur principal élection yi jappo na ne waroon naa mën ñëw ci bis bi wala mu yebal ko ko fi téwal wala le ministre de la communication mi nga xamné ñun moy suñu tutel waye ñom defuñu ko waye ndokk c'est l'essentiel mais à l'intention des formateurs dañ leen bëggoon xamal ni ñun deux objectifs lañu amone bu njëkk bi atteindre nañ ko pleinement moy indi fay formateur yu nga xam ñoo leen suñu jox formation jàngalaat ñu deuxième euh, objectif moo nekkoon dajale fii ñi nga xam ne ñooy élection yi journalistes yi autorité administrative gendarmerie police euh, ak waa tribunal nga seetloo ñooñu ñenn si ñoom gisuñu leen c'est pour vous expliquer que les hommes politiques qui étaient là ñoo ñëwoon ci suñu invitation pour mën a bokk ci dialogue malheureusement les autres partis n'ont pas répondu cela a un peu le débat pour le reste alhamdulilah puisque

ñëwal fii ci turi xalif bi sëñ Abdou euh, Laat ñëwoon na fi moom ci boppam nga ne mooy président commission communication euh, ci màggal gi ñoo ñëpp bu ñu fi dajee ak ñeneen ñoo xam ne ñëw fi ay parti politique ñëw fi ay kilifay euh, diine ñëw fi kon ndaje bi am na solo li ko amoon solo nag mooy journaliste ñoo ko ooteel seen bopp ñoom ñoo wax ne dañoo bëgg ñu indi leen yokkal leen rek dañu yokk rek waaye ñoom xamoon nañ ba noppi waaye dañu yokk weccoo la ñun ci suñu bopp jàng nañ fii la lañ fi jànge ci wàllu élection bi ci lañ jëm ñoom ñu ne dañoo bëgg leen leer ci wàllu code électoral bi maanaam li nga xam ne moo ci soxal média yi rek que code électoral bi yaatu na waaye li nga xam ne moo ci soxal média yi ñu loolu xam nañ ko jàng nañ ko loolu lañ fi wax ak li nga xam ne mooy code de la presse lan la suul wax éthique ak lan la nit ki war a def lan la war a bañ lan la lan la war a jomba bañ lan la war a jomba def lan la war a nangoo def loolu mooy les deux droits et les les droits et les devoirs du journaliste donc loolu moo ñu fi indi woon waxtaan wi dem nañ ci bi noo xam ne ji ñii li tax moom moo ne xam ne kontaan naa ci ndax ñëpp doon toog kenn demul fenn ba ñaari fan yi jeex yëpp ñu toog fii kenn ku ne ñëw toog di déglu di poser question yi loolu xam-xam bi ñu fi jëlee ñun yokkoo nañ fi mais ñeen it jàpp naa ni am nga loon yokkoo ci biir loolu rek kontaan nañ ci te it jàpp naa ne xëy na bunt bu ñu ubbi rek la waaye yeneen affaire a ngi ñëw ci diggante bu soobee yàlla. merci jaajëf.